tey bésu mbégte la bésu sargal ñi nga xam ni euh, Sonatel fondation Sonatel jàpp nañ pour seen euh, formation fii ci centre sectoriel de formation professionnelle en métier bâtiment et de travaux publics 324 jeunes maanaam ñetti téeméer ñaar fukk ak ñeent ñooy bénéficiaire yi ñoo la ñuy ñoom la jàppale pour ñu am formation bi gratuitement ci CSP bi mën nañu wax ni formation bi amal nañu njariñ lu bari parce que fii kenn ku ci nekk da ngay rêver bis nga man parce que tamit kenn mënul dimbali kenn te du da ngaa am loo man parce que tey bu ñu la dee dimbali lañ lay laaj d'abord loo man bu ko defee nga ni lii laa man donc te lii laa man boobu c'est à grâce à ça ci la ñu mën a jotee ñun diplôme bu ñuy permettre bu ñu demee ci milieu professionnel man ko déposer ni leen def naa lii man naa lii et que naa pare naa aussi pour appliquer loolu donc importance boobu. Euh, Sonatel dafa comprendre politique président. Euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que président dafa jël formation professionnelle teg ko ne moom mooy le cœur du projet donc c'est pour dire que Sonatel euh, euh la fondation Sonatel ak Sonatel en général euh, ñoom yàgg nañu comprendre que le développement du capital humain la formation des ressources humaines c'est un gage de développement